أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين لقن لساني واحللا منه العقد واجعله ذاكرا وساكرا أبدا wajaal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa xalbi arsida mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu nuyub lislaam bu tedd boobu te di leen ziyaara di leen ndokkeel bu baax a baax te di leen balu aq te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal comme ni ñu ko baaxoo ànde ak yéen rek di fàttalante ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu te ni ci doon ànd ak yéen ci suñu bind yi mujj doon nafaranoo ak yéen téereem bi nga xam ne moom la tudde Munawwiru Sudur doon ci jàngatandoo ak yéen ba tolloon ci fi nga xam ne mooy fi sëriñ bi radiallahu anhu doon joxe ay ndénkaane waaye di melal àdduna ni nga xam ne noonu la mel tey nag ñu bëgg a sóobu ci bunt bu njëkk bi mooy wax ne albaabul awwalu lii moo di bunt bi njëkk bi fii xisma yi diini ci ñaari xaaji diine albaabul awwalu bunt bu njëkk bi fii xisma yi diini ci ñaari xaaji diine ci la ko sëriñ bi radiallahu anhu tënk nga xam ne diine moom lépp jëfe ndigal la ak bàyyi tere jëfe ndigal ak bàyyi tere loolu rek moo di diine kon buntu bu njëkk bi ci loolu la ko sëriñ bi radiallahu anhu tënk mu ne i'lam xamal bi anna diina naka diine satraani ñaari rëdd la wala ñaari yoon la wala ñaari wàll la kama nassa naka mu ko yaxale bihi ca moom xabliya jiituma baadul xukamaa yi ñenn ci way dégg ña xikam mooy borom xam-xami xikam ya fa awwalun bu jëkk ba tarkul manaahi mooy bàyyi ay tere mutlaxan ci ak boy dail manaahi bàyyil tere ya li baaxin ngir jëmmi aji des ja te mooy suñu borom bi subhanahu wa taala at laxaa joj boyal na wasaani ñaareel ba fi'lu kulli shay'in mooy def lépp lu mana ne umira joj digleef na ko bihi ca moom waman képp ko nga xam ne yu dim hu saxal na ko yuk fa kon fegaleef ko al umara njiit ya ne na diine dina nga xam ne ñaari xaaj la wala ñaari wàll la comme ni nga xam ne noonu la ko ñi ma jiitu yaxale woon te it muy boroom xam-xam yu màgg yoo xam ne boroom xam-xam yu dégg diine lan waaye boroom xam-xam yu ñaw ay xel lan mu ne bu jëkk bi mooy lan mooy bàyyi ay tere bàyyi tere bokk na ci li nga xam ne moo gën a jafee ci jullit bi mooy bàyyi tere ndax dañuy wax sax ne bàyyi tere moom moo gën a jafe fuuf jafe ndigal ndax nit ki su fekkee ne góorgóorlu na bali sunu borom bi subhanahu wa taala tere du ci jege dara du ci laal dara te li nga xam ne moom la suñu borom bi subhanahu wa taala digle mu ciy jëf kem kattanam kooku mën nañoo yaakaar ci moom ak mucc waaye mën nañoo yaakaar ci moom njëggal waaye mën nañoo yaakaar ci moom yërmande suñu borom subhanahu wa taala waaye nit ki donte ne dafa sax di def lu baax fu mu toll waaye di ko def ba pare rax ca jëf ju bon wala mu cay rax loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo tere loolee la muy nuróor rek mi ngi mel ni koo xam ne day day day day day day jëf maanaam lu baax ba pare di jël lu bon di ko ca rax bu boobaa lu bon loolee day yàq la nga xam ne mooy jëf ju baax ji nga xam ne moom lay jëf jëf ju baax ji nga xam ne moom lay jëf comme ni nga xam ne noonu la sawara di lekke matt nit ki su fekkee ne day jëf-jëf ju baax ba pare di ko jaxase ak ab safaan ak loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo tere loolee day waral jëf ju bon joojee day lekk jëfam ju baax joojee kon looloo tax jëf ju bon moom nit ki daf ko war a moytandiku bu baax a baax li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala aaye nit ki daf ko moy war a moytandiku lépp lépp lépp bañ cee jege dara dara dara te li nga xam ne nag moom la suñu borom subhanahu wa taala digle mu jëf ca kem kàttanam ndax suñu borom subhanahu wa taala day wax ne daf leen a bind binduma nit ak jinne lu ñu jaamu ma kon ndigal li mooy lan mooy jaamu ko waaye li nga xam ne moom lay aaye kon mooy ñàkk koo jaamu ñàkk koo jaamu moom la suñu borom subhanahu wa taala di aaye ñu waxaat ci alquran ba tey alquran di wax ne yéen de yéen ñi nga xam ne yéen ay xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam day yéen ay xeet wi nga xam ne yéen a gën ci xeet yi waaye ñu ne ko kañ la ñuy gën ci xeet wi mu ne bu fekkee ne yéen a ngi digle lu baax di tere ab safaan saa bu ngeen saxee ci loolu day ne na yéen ay xeet wi gën waaye nag saa boo xamee ne loolee yoon woowee nga xam ne mooy tax ngeen gën ñëpp wàcc ngeen ko nee na yéenay gën a yées ci xeet yëpp kon mooy li alquran di wax ne dafa bind nit ci melo wa gën a rafet waaye nit di jëf jëfi bàyyi ma di jëf jëf joo xam ne jëf ju bon la ba dem ban wàcce ko ca wàccuwaay ya gën a suufe yoo xam ne bàyyi ma sax daanaka xelaatu fa yegg kon nit ki li ko fi suñu borom bi subhanahu wa taala andee muy jaamu yàlla daf ko war a xam bu baax a baax te di ca dox kem kattanam waaye li nga xam ne moom la suñu borom bi subhanahu wa taala digle daf ko war a xam di ca jëfe kem kattanam waaye la mu tere lépp mu xam ko waaye bàyyi lépp lépp lépp bañ cee jege dara moo tax sëriñ bi ne làkkin nama waaye al awwalu bu njëkk ba muy bàyyi tere asqalu moo gën a diis la daa man faka nga xam ne amanu gëm na wala zamu te ma te mu taqoo ata jallu daa ak góorgóorlu sëriñ bi radiyallahu anhu nee na bàyyi tere day moom moo gën a diis fuuf moom moo gën a jafe fuuf jafe ndigal ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla day ni bàyyi tere di mittee ci ñoom nee na jëfe ndigal du ko du ko mittee ci ñoom kon loolu liñ ciy dégg rek mooy nit ki bàyyi li ko suñu borom subhanahu wa taala digal day jafe lool ci moom day diis lool ci moom waaye jëfe ndigal dafa gën a yomb bu baax a baax a baax ndax nit ki dafa am ay noon yoo xam ne moo ànd ak moom di ay bakkan ak adduna ak bànneex ak yooyu nga xam ne ñoo ci aju yooyu yëpp dañ lay xëcce di la jëme ci loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo aaye léegi nag faw ngay notante ak sa bakkan boobu ba la nga xam ne moom la bëgg wala sa noon yooyu nga xam ne ñoom ñoo lay jëme ci la suñ borom aaye faw nga notante ak ñoom ba mën a jëfee li nga xam ne moom la suñu borom digle waaye ba mën a moytandiku li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala aaye kon loolu lu ama am solo la lu ñu war a bàyyi xel waaye ñu bàyyi xel ne nit ki na bàyyi xel ne jëfe ndigal moom bàyyi tere moo ko gën a diis fuuf kon nit ki na fexey ba lépp loo xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala tere mu bàyyi ko bañ caa jege dara waaye lépp loo xam ne moom la digle nag mu jëf ca kem kàttanam kon loolu saa bu ko nit ki defee mën nañoo yaakaar ci moom ak mucc moo tax mu ne wa fii kalaamil Mustafa nekk na ci waxi kañu tànn salla yal na dolli xéewal olaahu ca jë jëmmam ja fil ali ak ñoñom wa sahbi ak saxaabaam allazi ña nga xam ne abda feeñal nañu olaahu ak kawem lafzul muhajiri baatub gàddaay ila tamaami jëm ba ca mujj ga faj ta nit na nga teet assu'a ñaawteef bila ilmaami ci lu dul xam yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne ci xadis ne baatub gàddaay de buñ ko waxee la ñu ca jublu dëgg-dëgg mooy koo xam ne gàddaay na lépp loo xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala aaye waaye dëgmal na lépp loo xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala digle kon nee na almuhaajiru man haajara man maanaha laahu anhu ki ki aji gàddaay de mooy ki nga xam ne mooy gàddaay lépp loo xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala aaye lépp loo xam ne moom la suñu borom moytandikuloo jaam ñi ci ngir ñu jëf ko wala ñu tàbbi ca ne na ka gàddaay loolu ka gàddaay la suñu borom aaye rek ne na kooku mooy ab gàddaaykat dëgg-dëgg bu ñu waxee aji gàddaay kooku lañ ci jublu waaye gàddaay du koo xam ne moo jóge ci dëkk bi dem ca beneen dëkk kon gàddaay dëgg-dëgg lan la mooy nit ki xam lépp loo xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala aaye mu moytandiku ko bañ caa tàbbi benn yoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne na loolu bu ñu waxee gàddaay dëgg-dëgg loolu mooy gàddaay bu ñu waxee gàddaay dëgg-dëgg mooy teet lépp loo xam ne ñaawteef la teet lépp loo xam ne ak mbon la wala lépp loo xam ne mën na la caa sax yóbbu mu ne wa hakaza ni ki noonu lafzul mujahidi baatu jihaad warada rot na anhu tukkee fa moom alayhi yal na nekk ci moom min alihi ak ñoñam in farada joj kennal na xayru salaatin ngën gi xéewal wa salaamin ak mucc abadan ba faww fi xisbihi ci kuréelam ba waman ak képp ka nga xam ne abada jaamu na suñu borom subhanahu wa taala bi xaqin ci dëgg ne na baatub mujahid tamit buñ koy wax dëgg-dëgg mujahid mooy ki nga xam ne moo jihaad ak bakkanam ah ki ki nga xam ne moo jihaad ak bakkanam kooku mooy ki nga xam ne mooy dëgg-dëgg mujahid nga xam ne lépp loo xam ne moom la ko bakkanam di woo ci ab safaan ci loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala gërëmu ko dina fexey ba notante ak bakkanam dana fexey ba fexey ba bakkanam ba loolee mu koy woo ngir jëmale ko ci ak mooy wala ngir jëmale ko ci loo xam ne lu neexut yàlla la wala ngir jëmale ko ci loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo aaye dana fexey ba jihaad ak bakkanam xeex ak bakkanam ba loolee du ca def dara dara dara du ca def dara nee na kooku dëgg-dëgg moom mooy almujahid kon almujahid mooy ki nga xam ne mooy jihaat ak bakkanam ba lépp loo xam ne moom la suñu borom tere du ca du ca tàbbi du ca du ca tàbbi kon loolu itam lu ama am solo la ndax ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi demoon nañ xare ba ñëw bi ñu jugee xare ñëw yonente bi ne leen jihaat ju ndaw ji nag jeex na jihaat ju mag ji moo ci des saxaaba yépp yéemu mu ne leen jihaat ju mag ji mooy jihaat ak sa bakkan nga xam ne lépp loo xam ne moom la lay woo di la ci jëme ci loo xam ne suñ borom subhanahu wa taala daf ko aaye nga jihaad ak moom ba doo ko boyal mu dem ca loola kon ñaari baat yooyu muy almuhajir ak almujahid ñaari baat yu ama am solo la nga gis ñi nga xam ne noonu lañu ko sëriñ bi leerale nga xam ne ne na kii ji kii jihaad dëgg-dëgg mooy kii xeex ak bakkanam ba lépp loo xam ne moom la suñ borom subhanahu wa taala tere du ca tàbbi waaye ki gàddaay dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne moo gàddaay lépp loo xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala aaye kon buntu boobu moom la sëriñ bi jëkk a andi ginnaaw bi nga xamee ne andi na ndénkaan yi muy andi waaye dolli ca li nga xam ne mooy won ñu àdduna ak melokaan wi nga xam ne moom la amee kon ñi ngi tuub bu baax tey jégglu di wàcc foofu kàddu gi di wax ne in uridu illa al islah mastataatu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu lépp lu ci jub rek ñu ngi koy sant suñu borom subhanahu wa taala waaye lu ci dëng ngeen xam ne ndongalu xeebu lii ko doon def moo ko dëngal rek ngeen jéggal ko ko te jubbantil ko ko wasalaamu aleykum wa rahmatullah